25 euh, février la compétence bi nga pour convoquer le corps euh, électoral euh, ci 25 février gi nga conformément aux dispositions de l'article 31 la constitution ak décret fixant la date de l'élection présidentielle prévue le 25 février prochain loolu itam di kaddu yoo xam ne ku xam-xam màcc ci post mi ab constitutionnaliste di professeur Ngouda Mboup moom mon yi lay kaddu moo ko daal di jibal ginnaaw ci télé euh, bo xamné euh, dañu ko fa woon rek euh, invité won muy wax lu jëm ci processus électoral bi lé lay ak léegi jàmmaloo dox ci diggante ñenn ci taw ñi ak ñi nga xamné ñom ñoy la gendarmerie fi ni la situation mun nañu wax né c'est un peu maîtrisé fi ci marché Barak ndax ñi di gendarmerie ñuy replier wat di dellu ndaw yi nekkoon fii tam kii euh, sànnante ak ñoom euh, gisatuñu leen fi benn yoon en tout cas daal oto demul oto ñëwul pour ñi nga xam tam dañu bëgg a euh, yoon bi le gis nañu ne daal fee ca kanam sax ndaam ndaw yi ña nga ca beneen côté ba gis nga leen noonu ñuy woote takk der yi naan leen ñëw leen ay xew yu mag a mag nag lañu fi def pour ñi nga xam ne ñu ngi seetaan tey tam naka aw fii xam ne comme ki yaa ngi replié mën nañoo delluwaat ñu tam ca kanam mooy tireur. voilà ndegam di ko wax ci rajo bi di sax tout le monde li nga xam ne dañu leen sànni ay grenades lacrymogènes dañu leen wax rek ne dañu daal di replier kon nag ñun itam ñu daal di rek euh, replier ànd ak ñoom. nii de booy dox da ngay wane kanam pour à tout moment xel mën na ñëw. dugalal ma ko. papa yéeg ci kaw yéeg ci kaw yéeg ci kaw. donc takk der yi daal nañuy replier embarquement terminé boulangerie waaw waaw boo dugg ci yooyu ay ñamale ay foo sax bu leen ko defee ñu koy ñu ay foo de am non waaj moom indi nañ ko tey moom bàyyi nañu sax ñu ligg non da ngaa fàtte waaw waaw non yeneen bi non tey kay la man bàyyi nañu kay moo tax ma ne la moo tax ma ne tey kay mooy loolu tey balaa woote फन का तौर फन का तौर सेकंड हुआ यार एक कोटे कौन सुनाते हैं सुनाते भी दे दे मार वाला हां सुनाते भी मार दे बरा का मार दे बरा का कम कम ओके वाले Tuh kalau mau beli sejuta miliar kok. Kan? Anda bapak kamu ini. Wah, ini dekat. pourtant pourtant sànq na ko la maa ngi naan la ngóone ngóone. dégguma ko mais moo tax merci beaucoup kon jox nañu information boobu ne Anta Babacar Ngom euh, arrêté nañ ko ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom la àndaloon dafa fekk nag boobu ñu ngi ci beneen côté boobu lacrymogène yi euh, moom moo ñu sonaloon waaye sama confrère bi ñu may wax ne moom Anta Babacar Ngom euh, daal nañu koy jàpp xam naa nañu jéem a jox ko ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yore euh, communication am jéem a xool rek euh, ci euh, mbir moomee nañu ko jàngate ndax itam candidat sélection présidentielle ñu daal di koy teg loxo du ñàkk na ñoom dinañ fi am ab gis-gis waaye laata loolu itam ñu dem rek ci li nga xam ne moom mooy manifeste yooyee gis nañu ne ñi ngi takk yi daal di nañuy daal di nañuy dem Ousmane dina ne mu ngi koy jàpp waaye xam nga man comme mënaguma cee wax xaaral ma laaj ko ci nabu. allo waa euh, si sa xoolal allo léegi bu ko waxtaanee dama nekk nii sur le terrain bi ma nekk man ko taal léegi. non non waxal. entendeu?